gaay gaay gaay dañuy dalal Mouhamed Sagna wala Guy Marius Sagna Mouhamed Sagna wala Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna wala Mouhamed Sagna ayca ayca l'honorable député xaar allo l'honorable député Guy Marius Sagna Mouhamed Sagna Mouhamed Sagna mbokk yi nuyu naa leen yéen ñëpp nuyu naa leen yéen ñëpp le poing levé nous sommes tous debout pour le combat de la liberté oh, oh, le poing levé nous sommes tous debout pour le combat de la liberté mbokk yi Macky Sall nee na je pars je pars je pars je pars lenn lañ koy tontu va-t'en va-t'en va-t'en va-t'en Sall dégage Macky dégage Macky dégage dégage wax ji du bëri lenn rek la ñuy wax te Macky Sall lañ koy wax le 2 avril lay pare gëmuñu ne pare na pour dem fàttaliku leen mbokk yi fii la fi nekkoon di wër àddina bi ne day wàññi mandat de sept à cinq ans bu mu jotee defu ci dara fii la wër àddina bi naan du def troisième mandat mu wër àddina bi yëpp wax ko bu dul woon seen mobilisation suñu mobilisation du dem kon mobilisation bi nañ ko téye nañ ko maintenir ndaxte le 2 avril mooy terminus 2 avril terminus 2 avril terminus 2 ñaareel bi mooy dañoo bëgg mu organiser ay élections muy dem na organiser élection avant muy dem ndaxte mën na nekk askan wi tànn ci candidat yi kan mooy nekk candidat ñetteel bi ce n'est pas négociable dix-neuf candidats yi nga xam ne moom le conseil constitutionnel jàpp kenn du ko changé kenn du ko dindi dix-neuf yooyu ñooy dem élection présidentielle avant le 2 avril 2 avril terminus ñetteel bi mooy foofu lay daanelee réew mi ñun ñoo ko war a sauver réew mi ñun ñoo ko war a aar duñ fi nangu coup d'état militaire duñ fi nangu coup d'état constitutionnel duñ fi nangu tout simplement coup d'état le 2 avril bu demulee ñu taxawal suñu gouvernement d'union nationale de transition ndaxte dafay dem dafay dem dafay dem jërë ngeen